suñu jaayante ak Serigne Touba di la wax nan la ko waxee woon rek nun daal ñu ngi ci tollub xam-xam ba te yow rek lañ fa fas yéene nekkal ndax fuñ ci egg rek suñ borom yow la defal tawféex yi ñu e-, nga jaarale ñu foofu bañ egg fa. tiraanga yi nag rëy na lool fi nun ba ñu ñëw sax dañoo dajaloon suñu addiya indi ko nga bettaat ñoo yeneen yeneen yeneen xéwal xam naa ñoo ngi ñoo ngi jégalu Sëñ Tuubaa moom ku mu jox jël rek moo moo moo ci war waaye loolu suñu <laughs> <laughs> waaw waaw ah, jàngeen jàngeen bindikat <laughs> loolu moom ah, ay bindukaay laa <laughs> moom daal wax nañ ni ñun moom sëñ tubaa rek lañ la jàppee <laughs> te it sëñ tubaa rek lañ fas yéene liggéeyal ci ci toolub xam-xam rek lañ ko fa yéene liggéey di ñaan suñ borom nga suñ borom seral sa xol ci ñun ba nga dé foo bëgg a dégg xam-xam rek nga dégg ñu ci te xam ne sab liggéey la ndax wax dëgg yàlla kuy taxawal li ngay taxawal dimbale ay nit ba ñu mën ca bokk ca liggéey ba loolu suñ borom defalu ko ñu bari te nun ñi nag feek loola ma ngay taxaw dañ caa fas yéene nekk te duñ ci xaar dara suñ tubaa foofu lañ ko fa yéene liggéeyee di la di la jéggulu bu baax nag ndax xam nañ xat-xati jamono yi ak galfan gi waaye nag dañ ne woon sant mënut a ñàkk. sant mënut a ñàkk. alhamdulilah doon leen a sant. doon leen a gërëm. alhamdulilah alhamdulilah. dama leen di sant ba noppi doon leen a sant. alhamdulilah alhamdulilah. dinañ ñaar bu baax nag. alhamdulilah boo la ah, ñuy naan. loolu leen di ñaan te wér jiitu ci ak fan bu gudd nag. alhamdulilah wala kattan ngeen mën a nekk ci liggéey amiin ak sëñ Tuubaa ñu ko alhamdulilah fépp fu ñu nekk daal sa ndigal ñu fa bàyyi. mën nga da ngeen gën a da ngeen da mën a gën a daal lam xel bu baax a baax baax ndax sëñ Tuubaa faggoon na lépp. te lépp des ñu des ñu teg si bët. loolu bis nañ ci ba fàggu na lépp te lépp des ñu teg nag alhamdulilah yéen nag ci bi ci da ngeen jàpp si sant leen yàlla jàpp nañ ci fàggute boobu alhamdulilah alhamdulilah waaw ndax li li li taxawal yoon wi téye ko ba du jege suuf loolu xam-xam rek ma xam-xam rek koy def man fa minni salaamun tayyibun rafaqa shukra ila alqarmi faxri alqawmi akrim bihi badra ila qaidi al ajyali lil ilmi wal huda دليلهم للرشد والبر والبشرى إلى من له سيقة قلوب الخلائق إلى عشقه شوقا نفى الضر والنكرى إلى المنتقى والمجتبى عالي الهمم غلام قديم المصطفى كاشف الضيرة بشير بشوش المعي وعابد لرب كريم قد نهى الشرك والكفر لكم في قلوب الناس منزلة عظمى حقيق على أن لا أقول إلا خيرا مشاريعكم للعلم قد أدهش الورى فتاريخ هذا القرن يبقي لكم ذكرى فلولاك لم يعرف لذي العلم قدره لدى قومنا لكن رفعتم له قدرا سبقت الملا في حب علم وأهله وخصصتهم يوما تكرمهم جهرا شيوق كهول فشباب جميعهم تشرفهم للعلم جهرا كذا سرا جمعت وآويت العيال شملهم قلوبهم ألفت بشرتهم بشرا لي موم مبولو مي كداجي ربي كدم <laughs> الهي يطول عمره عمر شيخي بصحه الى ان يتم ما نواه قه عسرا فخدمته للعلم كمل وشرفا وقر به عينا واكرم به دهرا فرضوان شيخي خادم المصطفى السني لكم يا جزيل القوم يا خامل الجمره صلاة وتسليما من الله أبتغي على المنتقى ما في السماء على طيرا أكرم بشيخ جليل نابه علمي نجل البشير كثير العلم والحكم له من الجود ما قد أخجل الكرماء يعطي سؤولا بلا من ولا سأم شيخ له همة يبغي بها أبدا رضا الخديم عديم المثل في النسم شهم تقي نقي عابد ورع مجاهد بالتقى والعلم والخدم يسعى للتتميم ما قد كان ناويه شيخ الشيوخ وشيخ العرب والعجم خديم طه شفيع القوم قاطبة يوم الجواء يوم ينجينا من النقم من أمه من أم منزله روما لمكرمة فلا يخيب لا تنكر ولا تلمه حج ولبى لبيت الله معتمرا مرتل الآي دوما عالي الهمم ما زال مذ كان في سر وفي علن يقف الكبار ولا يشكو من الألم مد يد العون للراجين ديدنه طوبى لآتيه من رشد ومن نعم دعا المريدين طرا كي يقودهم لخدمة الشيخ تاج القوم والعلم أعاد للعلم قدرا كان حاويه قدما فأحيا بناء رائق الأطم لقد بنى عازما للشيخ جامعة بها يزول الردى والجهل عن أممه مولاه يعطيه إصحاحا وعافية مطول العمر ذا جود وذا كرم نجاه من كل قتل حاقد أبدا حتى يكمل ما ينوي من الخدم تقبل الله من شيخي ومن وزري أعني الخليفة من ينجي من الظلم قضى به الله حاجاتي وطهرني من العيوب ومن فقر ومن سقم يا الله صل بتسليم بلا عدد على المنقى من الآفات واللمم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbooloo من ينجل دي نيو آه، دي لنزيار آه، نجي leen بوينك جيسيني لك ورال موي mbooloo moo xam ne Serigne Mountakha moo leen woolu woon tey di taxoon mu wooleen leen itam weesuut mu xam ne ci xam-xam la ñuy yëngu mu woo leen ngir teral taral leen ngir xam-xam ak soññi leen ci waaye fekk na nag mbooloo mi naka jekk am mbooloom la ndax ñi fi teew ñëpp mën naa ne seenum njàng eh, ci moom la jaare ci bëri ci ñun ñi eh, man man maa jël sama ndax moom man. basin ba ba fi ma baye jang ci moom lepp ci moom la waye mbolo mi ñe ñu bëré bëri bañ tollee ci jang ba wara a itam ñu ci bëré bëri mo leen wutal ay bourse ñu dem jangé ba yalla dogal tay ji ñi am doctorat ñi am master ñi am ay licence bi lol amé nak ba ni bañ jangé ba ñëwaat mbolo mi amon xalaatu delo ko ñëkkal loolu waral ñu fekk ko njaareem ci tam xarit booba leg man na ñaarat wala ci wala fekkee mën na at ci lay toll ñu demee it sëñ bi loolu kawe ci ñoom kawe ci moom lool ma sant ca eh, yendoog ñoom ba ngoon jot waxtaan ak ñoom mbooloo mi it gis ne mm, sëñ bi yittewoo gum leen yittewoo foo ko teg paase na ko ñoom it eh, ñu ñu ñu feeñal sëñ bi seenu mbégte ak seenu cant ren jii sëñ bi kenn ku ne xam ne ne eh, yitte yi bari na xat-xat yi li li li mu yenu it kenn xamu nu toll waaye teewut ba mu demee ba Dakar xelam dafa dem ci mbooloo mi nga xam ne la muy dem ngir noppalu teewut mu mu woote wane ne bëgg naa dajewaat ak ñoom bu ñibbisee ngir mën a toogaat ak ñoom yendu ak ñoom loolu moo waral jotaay bi tey muy tey jii it mu yenduwaat ak ñoom yendu leen a ganale ba ngoon jot mu am ak ñoom ab jotaay boo xam ne la ci feeñ lépp weesuut mbégte ak ak ak ak ak ak yaakaar ñu am ci ñoom waaye nag ñu xam ne rek mbooloo mi daal dara génn ci sëñ bi ñoom it ñëpp ñu fas yéene laxasaayu ànd ak sëñ bi ci ci liggéeyam bi ndax sëñ bi moom kenn ku ne xam benn bëgg-bëgg rek la am muy muy xam-xam kon nag euh, loolu moo waral mbooloo mi di ko commencé ci sëriñ Moustapha sëñ Maam Mourtala sëriñ Aboum sëñ Jiili sëriñ na am sëñ Moodu sëriñ Cheikh Naam sëñ Mourtala Fall sëñ Maxtaar Silla mi sëñ saam buso sëñ abu sëñ muntaxa sëñ bi nee na yang ci ak sëñ Moustapha kon ñun yep, eh, kenn génnu ci sëñ bi ndax kenn ku nek sëñ bi sa sa waajur la sa lépp la waaye nag da leen da ak am ci ham ak xam-xam mu mu mu mu teg leen fo xam ne fu kawe la bah it xam nañ loolu bu baax baax kon nak ñoo ngi sant bu baax a baax bi te di ko ñaanal su borom bàyyi ko fi lool mu fi lool am. liggéey suñ Sëriñ Tuubaa ci xam-xam mu def ko lu kawe njortam te ànd koog moom. li si desit mooy bi waxtaan ak sëñ bi sëñ boole nañu sëñ Abou mi doomam ne daa bëgg mbooloo mi ni ñu àndee ñëw ci moom ñu ànd ak moom dem ba sëñ Ahmad Badawi mu xam ne moo leen booleeg moom ngir ñu mën a jàpp ci liggéey ci ci ci ci liggéey bi kon buñ jigee fi incha allah nañ ko defee ci sëñ bi noonu la ñu ànd ak sëñ Abou dem ba ci sëñ Ahmad Badawi loolu rek moo waral jotaay bi ñu ngi sant.